mu parrainage yu candidat yu bëgg a bokk ci élection présidentielle bu atum 2024 door na ca conseil constitutionnel ci fiche de parrainage yi nga xam ne ni moom lañ jot a saytu Boubacar kamara ak Cheikh Tidiane Dieye matal li mu pare yi nga xam ne ni moom lañ leen doon laaj. jàll neen parrainage comme ni ngeen koy waxee jàll neen premier tour euh, maanaam suñu parent baax na. 58 millions yi gis na si 6 millions yoo xamante ne gis ko si biir fichier bi mais mu dese ñu kon 53 mille 173 yoo xamante ne baax na. donc loolu tax na tey la candidature en tout cas le parrainage de Boubacar Camara nangu nan ko jàll na. ñu dëppoo ak li leen code électoral laaj gannaaw bu ñu tànnee parrainage citoyen yi am ñu gën kaa ñaari junni parrain électeur ci juróom ñaari région yu wuute. bu ñuy ñëw fii sax amoon nañ. Euh, douze région yu ñu yu ñu ëppale plus de deux am na benn région nag euh, lu ñu fa am matul deux mille waaye xam nga bu boobaa dañuy compter parrains yi ci ci lim global bi. mandataire candidat yi nga xam ne ni jaaruñu ci parrainage bi ndax ay limu doublon am nañu ñaari fan ngir jooyanti seen i limu doublon yu ñu neenal. donc problème mu euh, parrain euh, ku ne xam na ko rek mooy ay doublon yi am donc il faut aller chercher d'autres pour les remplacer. léegi nag il faut régler ce détail là. dans un bref ñu koy xaar ci suba ba léegi ca conseil constitutionnel mandataire bu Ousmane Sonko mujjewul ñëw ngir ñu saytul ko li mu parent yi mu jot a am.